Toujours dans votre acte du jour du 10 juillet 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV ginnaaw bi nga xamante ne di conclusion jëmale ko ci assise de la justice bi nga son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye digle Won na ko ñu amal ko foofu centre de conférence internationale bu Abdou Diouf nekk ca Diamniadio lii di conclusion yi nag jébal nañ ko kii di président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye mais mbetteel ak njàqare bi am sénégalais yi maanaam ni oui ni non bi nga xamante le président de la république Bassirou Diomaye Faye indi na ko nañ déglu ju vidéo bi dellu si moom Bassirou Diomaye fay démb bu Macky Sall bañee wax non nii no nii wii jëmale ko ci troisième candidature am moom président la République actuelle lan moo ci doonoon xalaatam démb ak tey moom ni non nii non nii wii jëmale ko daal ci conseil supérieur de la magistrature nañ déglu ju vidéo bi dellu siwaat bu muy wax nii wii nii non que ñu ciy discuter waat nii sénégalais di ci ne wii non te loolu mm. baaxul ci njiit mm. njiit bu demee bu yow mënatoo wax wax joo xam te mën na ci dóor doomam ça signifie que war nañ xool war nga xoolaat sa bopp li ci gëna gënon bari c'est ma am ci sax le conseil supérieur de la magistrature dama bëgg biral ne man je ne tiens ni à rester ni à en sortir mais je pense que li tax magistrat yi bëgg président fa ça mérite d'être écouté du nek oui du nek non man ma suivre Ousmane Sonko actuel premier ministre mu le conseil supérieur de la magistrature président bi ak ministre à dañ carrément pour que justice bi libre lolu moy proposition côté son Sonkooy Jomaay renforcer le pouvoir judiciaire jëlee fa carrément président de la République ak son ministre ils n'ont rien à faire là-bas du siéger ci ci euh, conseil supérieur de la magistrature leen di fàttaliku bàyyi leen di fàttaliku VAR baaxul. non bàyyi leen VAR non attention la conquête du pouvoir a ses réalités. la gestion du pouvoir a ses réalités. parce que les intellectuels tu les entends parler. ah yow de intellectuel le président de la République man kay man intellectuel la. <laughs> kon ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni ki fi nekkoon démb. secrétaire exécutif du parti Pastef bi président Macky Sall nangul addu ci ni oui ni non jëmale ko ci troisième candidature Mom moom dafa ne du waxu njit kilifa da nga war dem ba nga xamante sa kàddu soko ko nit ñi war ci tek sen baat donc kilifa warul wax ni non ni oui dafa war a sëkkandiku ci ben kàddu mom moko fi waxoon di secrétaire exécutif bu parti Pastef du temps de l'opposition tey yàlla moom la teg ci bopp réewu Sénégal ñu jébbal ko assise de la justice assise de la justice boobu moom ci boppam ak partem dañu ne woon bés bu ñu egsee ci gouvernement bi kii di leaderu parti Pastef nekk tey premier ministre moo ko wax ci làmmiñam samay nopp mu dégg ko bés bu ñuy ci nguur gi ki di président de la république ak ministre ñom ñep dañuy génn ci conseil supérieur de la magistrature pour que ñu am ben justice bu indépendante kon yaakaar naa ni ñom tay suñu ñëwee ba ñu né assise de la justice am ñenn ñoo xamante ni ñu mu bok ci la première des choses c'est que man mi bokuma. waaye mom mi tay di président de la république du Sénégal dafa né du né da ciy génn du né da ciy dess. kon ni non ni wi bi Macky Sall waxoon mom dellu suwat ni wax ci est-ce que tay lim mu Macky Sall daf koy reprendre wala du ko reprendre en tout cas les Sénégalais ont besoin besoin de savoir li am solo ba am solo moy ëllëg du añ du rër mais lu mata sourale la nit ki lépp loy wax rat na fexe ëllëg ak ci yow so ci nekké kenn du la ci gis ni ko olof di waxé ku la ci galu xaj fexeel ba bu mu la ci fekk waye nit yéne la ci galu xaj ba pare ñëw fekk la ci bir je crois que yow maté wul li nga ton en tout cas muy ben contradiction bo xamanteni amna ci ki nga xamanteni dembu il était un militant ou bien un sympathisant d'un parti politique waxoon ay cadre ci non ni ni wo ni non ni oui. bu président Macky Sall tay mom biko ko yàlla ci bopp njiitu réew moom it dafa wax ni non ni oui. ban lañ ci wara japp nak en tout cas les sénégalais ont besoin des explications venant de ki nga xamanteni moy son excellence président de la république Bassirou Diomaye Faye ci taxawayam ci conseil supérieur de la magistrature da ci toog wala da ci guen en tout cas sénégalais yi soxla nañu mu tànn benn. Yeah.